di mo tax war di ñëw sa yunek yu nekk déggal anti nag <laughs> xam naa mm. ci ah, man mi ngaa gis ni nak day ndumbe mm. bu fekkee dama wara don doon sa nijaay da nga war a xel ci ay mbir man maksa sa baay ma jibel ñoo bokk ndey ak baay yàlla gene ko fi yóbbu ko àllaaxira ma fi ndax ma mun koo di ko dimbale ci li nga xam ne moom la fi bàyyi moo tax nag man rek nga fi am fi mu ne nii bu dawul man doo amati kenn bon bu ñu di baax day ñëw di ñu seet si bu dawul ñu di keneen de te bés bu ñu laa mayee ji maa ngi ikkati joxe nga bàyyi ci xel nag ndax noonu sagar dégg la kañ boo bàyyi xel dangaa gis ne fu mu ne nii man tam maa ngi ñaan ci yàlla su ma natt bi bari na trop waaye nag xam naa xiwale yàlla dina ñoom nag dëgg waaye nag waaye yéen xale li tey da war a jéem seen këmt lay kàttan rawatina yow mii sax ndumbe xam nga fu ma la teg réere wala mbir ne sàmba mi laa wut ñëw na seet ñu fii waxtaan ak ñun du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon te gannaaw loolu sàmba am na oto sàmba am na kër samba dara jotu ko doful bon lu deseti lu don ndumbe jëmal de waaw ma ngay deglu ni nga waye way xana man sama munut ma bayyi xanaa yo ya gën samba góor boobu dibi bu mu la bàyyi nekkuloo eh, meluloo comme ni nga melo ah nga fa yo ya gën suma mam lu ma wax ne ki nga bagn ko ëllëg si loo xam ngay mujjee nga bàyyi loolu si nga bàyyi nga bàyyi xel si loolu nag. te ndax sa Samba moom dara jotu ko bëggul dara lu dul ñaareel. Ah, ñaareel jabar rek la bëgg. ñaareel nekkul ñetteel ñaareel dañ ko ah? fekk fi loolu. àndum ah, bi wax ñu nag loo gis ci Samba ba bañ. nekk ñaareel bi mooy tax nga nekk ñaareel si si si àdduna bi ah. lu ci say kàddu ndumbe ndumbe jéemal lu tax bëggoo Samba wax ñu lu nekk sa xel. waaye man mi jaay. xanaa du sàmm bi ma xamoon. sàmm bi nga xamoon nu mel. sàmm bi ma xamoon nga xam ne dafa ràgg amut daal yére yu moo sol sa amut ko xanaa lu mbiri sama boobu ngeen maa wax kay. laale lile yàgg ya naa laa topp yow ah waaye ndumbe ba ci laan nga maa laal ah waaw ndumbe ndumbe yow nak suma li ma la waxoon nag loo ci wax lan ah ndumbe yow xam nga yow rek lay deyal ah yow hmm. gis nga yow ah yow Samba yow xam nga yow xamuloo sa boppa tëdu gi nga suma doxaan nga ma stop si yoon bi du baax ci yow dégg nga ndumbe lu tax te next time bo ma stoppatee mbéj laa laa tegal man waaw mi ndumbe waaw nga ne man may nekkaay man xanaa duma samba yow man dama di sa kalaas yow xoolal yow ni nga mel raaga ba dee xoolal sa silipaas yi xoolal sa mbooy xooteeku yi xoolal bugguma laa laal sax yow gis nga gis nga bu maa doxaan nga stox ma du baax si yow ndumbe gis nga na na nga dem uti sa classe dégg nga lu ma laa waxal ndumbe man laa waxal na te na nga em fi nga em ah ndumbe li lan la yow yow man dinaa taxawa yow li nga mel silipaas jeex yi boo mara luwut léegi di nga xam ndumbe am saxut ñàkk saxut dina am bés daal di nga ñëw demal sista bi nga doon renga lii nag moo leen yàq yéen xale li tey lu jot sàmba sàmba démb ak sàmba tey utaate nañ ni guddeeg bëccëg te sàmba tey ak sàmba ëllëg dañoo utaate waat ni guddeeg bëccëg yéen nag xalel ngeen rawatina yow mii xale gune bi nga yore war nga jéem nga génn ci ya nga melni ni go xamantene bo fa guñ ko sax dekk ci demba ci barka demba baña dugg si ci tay ndax sa élève mun ba baax jéemal ndumbe sàmba moom la la yalla beral ndax du nonu sagar loolu kay moom jaay li nga wax yeb dëgg de waaye xalatal ne dalasi dalasi rek la mun andal lu ma bon sama jarul dara fajul dara mënul dara ah man de fi mu nekk ni àddinaa ngi bëgg a nag ndumbe de man xamat nu ma loo bëgg nag ci àddina bu dul sàmba daal man gisatu mag benn góor goo xamante ne mën nga ànd ak moom ndax sagar yaa ngi dégg muy wax waaw loolu déggal gis nga àddina fii ku nekk dafa fone moo gën bam bam gis ku ko gën nga bàyyi loolu sa xel dégg nga moom anti bam gis ku ko ëppa man sa xam naa dinaa war a nekk ci yoo ci yooni dem léegi ah bu la neexee fii sa kër la xam naa boo demee di nga te boo demee it duñu naxar yi nag xam ne dañu seet si te bég naa ci lool ni nga bàyyee kër ga ñëw ba fii bon donc bu fekkee ne loolu liñ laa wax ni moo la fi génnee nga baal ñu ah war naa dem di yow ah, amoon na fi ah, fii ah, ah loolu ah añ fii nii malaste ko fii nii ak baram yi nga dama bay ci bu fekkee da nga bëgg a jóg demee noonu bon du ma neex wax ma rek ne du ni ñuy waxtaanee moo tax nga mer meroo de meroo mu waa jox ma la lii laa bëgg nag laa bëgg ku am mel ni yow di ko kibiroo ah yaa ma neex dégg ni ma la ko waxee rek day fàttaliku saa yu nekk man nga fi am ak sa yumpaañ muy sagar mii ñu toog fii biir tànji di la xalaat guddeeg bëccëg ah loo def ñu ngi xalaat loo xalaat sax mu ngi ci suñu xel bu ñu or te bu ñu rusloo dégg nga jërëjëf waay Ndoumé nii laa ko bëggee dégg nga jarbaat jërëjëf loo bëgg a def nii nag moom dafa jóg ni nga way trochę. ah ak si nañ ñu ngi génn na fi mu ne nii waaye nag ah, li nga war a def rek mooy lii ndumbe na nga jéem di ñëw di seet si bég naa lool li nga ñëwee nekk ak ñun ñaari bés yu aay nii nga war di def bu ko defee ñu bég ñu xam ne ñu nit am nañ ku ñuy puugaroo muy ndumbe mi du noonu jërëjëf waay doom waa indi ma téyel la di dafa dikk waa bàyyil bàyyil waa bàyyil ma téyel la waay ah salaan gi indi ma téyel la rek yóbbal la waay eh, eh. waaw dafa ndànk nag seral yaa ngi ko téye ah. nag waaye nag boo àggee xam nga lu ma bëgg a ah. eh, na nga ci génne boo àggee rek ñeneen yu duuf xooli leen les leen bi ñu rafet joxal ma leen sàmba mu mot ndax xam naa boo ko defee rek indi ma téléphone du noonu waxuma dégg ah, waaw waaye nag seetal nag ma fàttali la dara. Hmm? jéemal yow fi mu nekk nii yàlla la may euh, doole yàlla nga la may wérgu yaram mu ngi la may xel boo xamante ni mët na yaa ngi yore sa taar doom waaye taari daaw jéeg taari daaw ak bu ren ak bu ëllëg dañuy utee na nga taaroo woon daaw jéeg taaroo woon noonu daaw. te ni nga taro ren du non nga melon daw kon doog na nga bàyyi xel aduna nge wër jamono nge dox duñ delu gannaaw te duñ bàyyi ken gannaaw dañ la yobale bàyyil xel de ëllëg sa gi mun na jeex be ne tak nga xamantene ne gu wex sax ndax jeen bu nup sax mo la gëna saf nga baal ma ci lolu te xam rek ne aduna day dox defal lu gaaw ndax ñu mëna ñew def liñu wara ah? mu ngoog waaye nit ñaa doo leen em fii ma dem jël ma damaa gaawalantu dem waaw xam nañu da ngaa gaawalantu rek ah, sagar loo am nag pour wax ci ah sagar mu ngi nii di dem de anti sax moo xam naa moom moom anti ne moom mu ngi ci tànnatu rek waaye waaye sagar wax ci tërandoog balaa moo dem <laughs> man lu maa woo si mooy waaw nekk ñaari jabar mm-hmm. nekk ñaareel bi loolu du tax nga nekk jaam mukk waaw te lu ma wax ñun suñu aada bi waaw suñ aada bi amut amut amut amut amut loolu la am pour wax la nga bàyyi ko si sa ah, jërëjëf waay boo demee nga nuyu ma sa yaay dégg ak mu ngay ñëw ah nga dugg a dégg nga baax na mu nga waay jërëjëf ndumbe jërëjëf dégg nga la ah? yal na la yóbbu ci jaama ah? kontaan nañ torop